leeral tu TV te mooy jox lii di askan wi xibaar yu leer wér wóor te teg ko ci màndu day indi li nëbb woon askan wi jox leen ko ci réew mi ak biti réew wax jépp day woddu del topp tey abonné tem boole kook déglu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu ci mboolem banqaas daaray islam international ak leeral tout TV international une heure du matin tegal na cinquante minutes ca masjidul aqsa sun jumaa ju tedd ja ci réewum Palestine deux heures du matin tegal na cinquante minutes ca masjidu aya suufiya ca Istanbul ca Turquie masjidu Quba ak masjidul qiblatayni ak masjidul haram ak masjidu nabawi jumaa yi sala salaam ca madinatul munawara asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu foo leen nekk ci biir Sénégal ak àdduna bu wërngal kàpp ci guddik altine 21 octobre ati 20 24 17 ci weeru salawaatu rabbi wa rakki weeru salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ci réewum Sénégal réewam salawaatullahi wa taslimatuhu alayhi ñuy julli miliyaaraati jullee ki sëlmal ci moom chefu mbindeef yi yonent yàlla xaamit salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi di julli miliyaaraati jullee ki sëlmal ci mboolem yonent yeeg anbiya salawatullahi wa taslimatuhu alayhim di ñaanal saxaabaam yu tedd yay miliyaaraati ngërëm ridwanullahi alayhim ajmain 19 direct ci daaray islam international xabaar bitim réew yi ci wolof ci yaatal la ci gën a fës war nga xabaar yi réewum Turki réewum maire président xafisahullahu taala wa raa daañu demit tenoor Soudan ak yeneen réew technique bi El Hadj Damou Ndiaye ñuy gunge jaa ngeen gërëm nañu leen ci seen ànd ak ñun daaray islam international nañu leen ko junjëwan ci njàlbeenu xabaar yi réewum Turki ñu ñuy wutali capitalam ba Ankara deuxième capitalam ba Istanbul ñu dugg fa nag sartaagal wutali Amérique foofee la nekkoon moom Fathullah Gulen waaye nag dafa génn àdduna atum 2016 la da woon làqu fa ginnaaw coup d'état bu lajj bañ bëggoon a def président Erdogan Rajib Tayyip borom bi tabaraka wa taala gàntaloon ko jaaroon ko ca askan wa askan wa demoon ca kanam yooye soldaar dal jàkkaarloo woon ak ñoom donte ay civil lañu di tëdd ca ay char de combat ca kanamam ak xëqanteeg alkaatiya ba yeneen daal euh, soldats yoo xam ne ñoom bokkuñu ca loola ñëw dal di neutraliser ñooña jàpp ca ñu bari am ñu ca faatu mu doon mbir mu doy waar. Fatxulaa gulen mii nag lañ ni moo initié woon boobu lépp coup d'état lu ca mën di xew dawoon euh, dem daal Amérique euh, boobaak léegi daal fa la nekkoon làqu fa moom mi nga xam ne mooy fondateur bu école yu yaawu Salim kon daal faat na justice bu Turquie nag buñ ko jotoon atte ko daal waaye loola mujjul woon sotti banam faatoo ñuy ñaan moom guleen fatxulaa borom bi yërëm ko jërë ngeen jëf ginnaaw lool noor Soudan la ñuy wutali soldaar yi coup d'état yi daal seen xeexu caaxaanu bu yaree di ko ba ñu ngi koy euh, wéyal di indil nit ña fitna ju tar ju metti fi ne nii lim bu baree bari ñu ngay dawaat di dugg réewum càdd la ko waral mooy daal xeex ba dafa gën a tar gën a tàng benn ville bu mag boo xam ne daal moom la ñuy tuddee Waadil Fira foofee daal nit ñaa ngay daw ndax daal xeex ba jéggi na dayoo diggante force de soutien rapide ya ak soldats yu régime ba muy mbir mu doy waar askan wa sonn lool. meneen réew mu ñuy dem réewum Kenya soldat réewum Mali balaa Kenya Mali jiitu soldats yi coup d'état yu Mali ya ñoom joxewaat nañ bilan. te mbënn ma am ca seen réew ma nee ñu daal ba nawet ba door rek léegi ama gum nan quatre-vingt-quatre morts juróom-ñett fukk ak ñeent daal nee nañ faatoo gum nan nee nañ tamit lu mat trois cent blessés na ca ay jurit euh, daal faatu foofitee réew ma école yu baree bari ndox ma nangu ko ñoom sax école heure yi waa Sénégal ak ñeneen ñi ubbi lañ war a ubbi waaye nee ñu dañuy bàyyi ba novembre ñu seeti pexe daal ba xam ndax daal ba fi mu ne nii mbir ma sottee gul ay tool yu bari yu yàqu ak yeneen yeneen naan yu yàqu foofitee réew bu Mali jërë ngeen jëf réewum Kenya taaxum huit étage moo fa effondré wu xabar ñu ko daal ni këpp ni këlëb fi mu ne nii nag euh, daal Euh, ña nga xam ni ñooy sapeur yi ñu ngay wër ak a jeex ndax di xool ba xam en tout cas taax manam daanu suba buñ ko fàttewul vidéo bu koy firndeel daañu leen ko yónnee am na daal ñaari xale yoo xam ne daal dañoo wuti woon côté booba taax may daanu ñu dëpp daw am mag mu leen di xëcc tuutee te daal mu raja xaale waali leen waaye moy na taax ma nag rëy na te daal tey kër la sësoon mbaa nag defu fa jiyee daal fi mu ne nii gars yi neen ñu ngay def ay recherche ngir war ak jeex ba xam xool ba xam ay nit faatu na ci ak buñ faatoo nu ñu toll jërë ngeen jëf république démocratique bu Congo xeex bu metti ba jéggi dayo diggante jéngumaa ni M23 ya ak milice yu pro yu pro gouvernemental ya Euh, nga xam ne ñoo tudde seen bopp daal euh, wasalan wasalendoo ñoom ñooy xeexoo xeex bu metti euh, la ca tukkee nag xamleeguñ ko daal waaye en tout cas fëggibal fëggibal fëggibal ja jéggi na dayo xeex bu tar waral askan wa daal bal ya rek ñoom lan ca am kenn ku ne wut fa rawale sa bakkan daal ne dagaj sa kër di ñaan daal bal bañ fa ni dagaj jërë ngeen jëf réewum Mozambique foofa day la fa amoon tey mooy am ñaxtu daal la kujje politique ga woote woon waaye day nguur ga dane du ca dal ñu ne dana te dal waaye ban génnee daal comme ni muy amee Afrique rek songu leen ak gaz lacrymogène ak daal ay fitna daal yu tar yoo xam teg nañ ko ci seen kaw gaa yi mujj tasaaroo ñoom nag dañoo woote woon ab grève générale boole ci ay manifestation yu ñoo ñëwoon day daj réew ma mépp waaye en tout cas lii mbir ma mujjul sotti ndax daal takk deree te ngeen fitna ju tar ca seen kaw capital ba nag fala mbir ma gënoon a tàngee nguur ga ni am ñaxtu du fa amee ñoom nag la ñuy yax ñaxtu ñaari mbir la benn ba mooy élection yi daal la ñu ni ko jiite ku jege moo ko gañee nguur ga sàccu ko ba ca des it moom moomee naan moo gañe gañewul sax far ñaari militam kenn ka doon avoca ba pare di militant politique am keneen ka di beneen militant ñoom lan faatandoo daal ci genn guddi bal fëggibal bal bañ sedd guyyu loolu daal lañ leen def muy jëf yu ñaaw ñaar yooyu lañ doon naqar li ñu far naqar li ñu far leen dolliwu naqar Guinée Conakry soldaar yi coup d'état ñoom day tey jii daal liñ waxaat kenn xamul daal lii lan la parce que ñoom dañ ni bu fekkee daal kujje politique ga ak ñay wax bëgg ni daal bëgg nañ Omar Silla ma ñuy ñambasal Foninke Foninke Menge ak it euh, Mouhamed Bilo Ba bu fekkee daal bëgg nañ ñoom mën nañ leen leen a seetle daal mais ñoom gisuñu leen te seen nga ñu nekku te mais nag bu fekkee ñooñu bëgg nañ mën nañ leen leen a seetle buñ bëggul tamit garaawul loolu daal la gars waxaan waxaat nee nañ daal ñoom nangu nañ pour lancer ab opération ab opération de recherche jàppale leen daal ci wëram ñooñee mais ñoom nee gisuñu leen lii ñu wax nag euh, askan wa ci waxi nee nañ astaxfirullah du dëgg parce que ñoom ñoo leen jàppoon fëkkoon leen yóbbu mais nag soldaar yi ñoom nee nañ daal fëkk ñu leen jàpp ñu leen dañ ne woon ñooñu ñooy réer réerlu dara daara islam international di laaj ndax mag muy réer réerlu kenn mën na ko seet ba gis comme déet ñoom ñoo ne woon dañuy réer réerlu tey ñu ne ko seet muy mbir moo doy waar. jërë ngeen jëf euh, réewum Tchad docteur Sixé Massara moom ma jiite ku jëppalti ga moom de nee na élection ja nga xam ne soldats yi coup d'état yi Tchad ya tëgg nañ ko 28 décembre bëgg na ci daal sumbaxloo donte nag yaramam sawarul bu baax ndax daal nii gars yi defee élection yi daal jàpp na ni lan ko defoon ca présidentielle ya moom lañ koy def moom mii sax neewoon na moo gañe gars yi ne ko gañe woo demal toog ay booyam di déconné nu yitti ñenn ña ñaari nit jot caa faatu daal mu mujj muñ wax ja jeex affaire ba daal yàggul ndax daal soldaar yi dañoo génne daal seen takk der yu doy ni daal succès Masara gañewul ñoom ñoo gañe te képp ku dekone di nga am problème ña déconné am na ñun te jot ñaar jot faatu ñu duma ñenn jàpp ñenn gaa yi mujj naan muñ daal te naanim ndox. jërë ngeen jëf Cameroun sama maam ñibbi na maam Paul Biya daal borom 4200 yi ca nguur ga nit ñi doon ko jéem a yab temps yi nag naan maam Paul lu ko dal maam Paul nangam ku ne daal di ko jéem a dépassé daal. maam nag fi mu ne nii ñibbi na wàcc na ca capital ba Yaoundé mais nag da koo xumtoo de defu ko daal teertu bu xumbu ndax maam day bañ bu ko gaa yi xoolee naan kanam gi sab na dese naa tane wala daal yooyu en tout cas daal rucc ku ne ñëw jàpp boppam gaa yi ni maam Paul ñëw na nit ña nag fi mu ne nii bëgg nañ koo gis kañ la maam Paul di génn nag ca tele ba wala fenn daal nu gis ko loolu fi mu ne lan xamagul kañ lay doon en tout cas mag la ma ngi ci juróom-ñeent at ak euh, benn ñeent fukki at yaak ñaar yëpp ca nguur ga la ko nekk nuy ñaanal maam Poul mu wér te sax balaa faatu far dugg ci lislaam jërë ngeen jëf ab sondage génnati na ca l'Amérique diggante candidat ba candidat ba Donald Trump ak Kamala Harris sondage ba la lam wax mooy sept état juróom-ñaari état ñoom nag état rek mooy région bu ñu nee province mooy région bu ñu nee région mooy état bu ñu état mooy province wax ja jeex kon fu ne nee état région la jàpp leen ko noon ci Sénégal bu ñu nee tamit euh, province mooy rek région benn la rek. ñoom nag ban xayma juróom-ñaari état day dañ ni madame Kamala xaaris day moo jiitu mais njiitu c'est toujours comme na muy demee rek sondage yi daal Kamala Harris 49 Trump 48 toujours sondage yi ku ci raw sa moroom benn képp lay doon Kamala Harris nag juróom-ñaar juróom-ñaar région lañ ko waxal daal ni moo fa jiitu jërë ngeen jëf ginnaaw loolu ñu dem ci xabaar yi aju ca Israël. kàccoor yi bon yee yal na yàlla tuskareel leen seen caay-caay ga ñu ngi koy wéyal bokk na ca caay-caay ya nga xam ni ñu ngi koy def faatati nan foofee ca Liban ñeenti nit tey jile bel ñeent ñoo xam ni am na ca ñu doon ay xale blessé fa 24 ministre bu Liban ba yor wàllu santé moo xamle xabaar bile. leneen loo xam ni def nañ ko ci ñaaw ñaawteef mooy ñoom Israël faat nan ka nga xam ni daal moo yoroon lépp lu jëm ci wàllu transfert d'argent ca Hezbollah ca réewum euh, ca réewum Syrie nag lañ ko dàkkee ca capitale ba Dimashq faat ko xam ngeen ni yàgg nañ leen wax ne Israël daal day localiser dignitaires yu Hezbollah yi ak yu Hamas yi ak yu waa jihad islamique yi ñoom ñëpp daal noonu lañ leen di jéem a faatee muy daal jëf ju ñaaw. joo xam ne ñu ngi koy def ñoom noonu yàlla ya kon daal kii localisé nañ ko ba xam fan la toll daal ñu sànni fa ay frappe aérienne ba faat ko mu doon nag ka yoroon lépp lu jëm ci wàllu transfert d' argent ca Hizbullah ay dollars yu bëree bëri daal leen daan transféré di ko jëme ay béréb bérébaan moom moo ko yoroon faat nañ bakkanam mu doon kàngam lu mag a mag foofee ca Hizbullah di jëf ju ñaaw ju defati ñoom noonu yàlla ya jërë ngeen jëf ginnaaw loolu leneen lu ñuy wax ci xabaar yi ñoom Israël nee nañ jàpp nañ juróom-ñaar ñoo xam ne na am mën nañ leen tuddee ay israéliens parce que nag euh, am nañ nationalité yu Israël waaye nag seen cosaan mooy réewum Azerbaïdjan nee nañ ñooñee daal euh, dañu doon jéem a amal ay jokkoo ak réewum Iran di leen jéem a jox ay information moo tax nag euh, procureur général bu Israël ba nee na daal loolu tax mu jàpp leen te ñoom daal dana leen topp ca wàllu yoon. jërë ngeen jëf ñoom Israël seen mbon ga ak seen caay-caay ga nee nañ am nañ yenee incha allah kër ga nga xam ne moom lañ localisé woon euh, ba xam ne daal fa la kañuy tuddee docteur Yahya Euh, Ibrahim As-Sinwar xafisahu rahimahullahu taala euh, kër gañ localisé woon ba xam ne fala la nekk daal ñu bombardé ko ba faat ko fa euh, kër googee nag nee nan jëmmi kër ga ci boppam dan danañ ko rajaxe lépp daal ba mu jeex tàkk loolu lañ xam le ginnaaw bañ ko faatee nag dañoo jëloon am néewam yóbbu ba léegi nii joxuñu ko daal waa xarakatu Hamas ndax nee na ñooy dañ leen koy chantage di leen wax ni pour ñu jox leen ko da ngeen ñuy jox suñ prisonniers yëpp yi ngeen ñu jàppal loolu nag xam ngeen ni mooy xel mu dafee ak euh, xel mu sakk daal ba kanasu waaye xam ngeen ni loolu xizbullah euh, ñoom benn ay jullit lañ xam nañ ni xam nañ ni wa wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu fa yura kon nag yaakaar naa néew ba buñ te jotul tamit borom bi tabaraka wa taala xam nga néew ba moom yaram la rek ci kaw waaye la am solo muy ruux ga moom la soo borom bi ta tabaraka wa taala moo cay am di lam ca sant malaayika ya euh, kon ruux mooy dund mais yaram moom du dund xam ngeen ni Euh, nii ñuy tëdd nii faatu nii ci bàmmeel rek bu fekkoon dañ ñuy rob te delloo wuñu ruux kon malaaka yi bu ñu laaj nañu tontoo ruux gi lañ ñuy delloo bu ko defee nag euh, ulama yi liñ gën liñ gën a misaale dañ ne daal booy tont da mel ni ku xaw a nekk daal ci ay xaw li nelaw maanaam daal du leer bu baax a baax mais nag di nga comprendre li malaaka yi laaj di nga mën a tont mais nag doo mel nii correctement bi nga xamee ni kii loolu daal la ñenn ci ñoom wax kon nag wax dëgg yàlla loolu kuy xalaat naan danañ ko jëndee jot néew ba danañ ko jëndee te borom bi tabaraka a taala di labal ay nit ci géej kenn du gis seen néew ba faaw am sax ñoom dogal gaynde jëfandikoo leen wala yeneen ak yeneen ñenn ñi faatu ci lakk nga xam duñ gis leen lu bokk ca ñoom euh, kii nga xam ni mujaahid dëgg la faatu ci yoonu yàlla ngeen ni du ngeen joxe am néewam lu dul jox leen seen i otage yuy dund sëñ bi yenee a ñàkk jom te ñàkkum xel xam ngeen ni lii bu ngeen doon nit war ngeen a xam ni xaraka baak expérience ba ñu am ak xel ya ñu am ak nañ jànge l'islam maîtriser ko nga xam ne daanaka ñëpp kàngam lañ kenn ku ne ak wet nga spécialiste war ngeen a xam ne seen waxi dof yu kana su ko def yal na yàlla alak Israël yal na yàlla alak Israël ak mbooleem ñu ñàkk jom ñiy méngoog ñoom jàngeen jëf xibaar ke mbod na to a leer mene na leeral to tv international xa leeral to tv international xibaar nu bëggoona nan rek nangi defa leeral to tv international in way laya nuun joko njal na a nan gino xale nuun nan gin wa leeral tout tv